dañu dem ba gis jamono toll ci jamono yu nga xam ne syndicat buñ jógee li ñuy wax ak li ñuy ñaxtu mooy signé nañ ay accord nañ ko respecté waaw mouvement syndical liy baaxam mooy bu jógee di xeex ba signé accord xeex ba jeex na tàkk te accord yooyu moo koy réglé tey jii accord yooyu ñuy siñe ñoom ñooy nekkaat euh, motif pour ñu jógaat di xeex loolu xam nga kenn xabut lu muy niru ñu seetlu ne tamit syndicat yi nga xam ne ba àdduna ba bi àdduna di baax mouvement syndical ba muy am doole mouvement syndical ba muy am gëdd nga xam ne boo xoolee histoire àdduna bi da ngay gis ne mouvement syndical lépp lu nga xam ne mooy événement essentiel mouvement syndical mi ngi à la base yi ma ci mën a lim bëri na waaye li révolution francaise rek laa ciy lim